juróom-ñeent fukk ak ñaar dunduk taalibe Yeesu Kirist asalaamaaleykum mbokk yi déglu nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla boroom jàmm ji bëgg ñëpp dégg te nangu yoon njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom fa faaw sunu mbégte tey nag rëy na lool ndax li nu mën a dellu si ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ni nu leen ko digee woon ci émission bi weesu tey ci danu fas yéene gëstu ci ni kuy topp Yeesu Kirist war dunde ba neex yàlla dina gis ni ngëm gi taalibe Christ am ci xolam war a feeña ci xalaatinam ci waxinam ci jëfinam ci dundinam gépp daal waaye nanu jëkk a fàttaliku kan mooy taalibe Christ bu wóor ni nu ko gise woon taalibe Christ mooy nit koo xam ne nangu na ne bàkkaarkat la fa yàlla aji sell ji te amul jenn yaakaaru dugg àjjana ci kaw dooley boppam waaye mu gis itam pexe mi yonent yàlla yépp yëgle woon ci li yàlla mëna a baal doomi aadama seeni bàkkaar pexe moomu mooy deewuk yeesu kirist mu jub mi ca bant ba moom mi yàlla jébbale ci dee ngir sunuy tooñ dekkal ko ngir àtte nu jub ci tënk nag taalibe yeesu mooy ku nangu xebaar bu baaxu almasi bi yeesu ak xolam bépp te xam ci lu wóor ne ay bàkkaaram yépp deñ nañu ni ko yàlla dige ci kàddoom jàpp na ko ni doomam maanaam yàlla jàpp na ko ni doomam moom lañu bind ci linjil ne ñi nangu almasi bi yéesu te gëm ci turam may na leen ñu am sañ-sañu nekk doomi yàlla ñooñu judduwuñu ci deret ñi ngi juddu ci yàlla te soo nekkee doom ci yàlla ci kaw ngëm ci kirist yéesu ak saraxam doo sànku mukk te yàlla dina la may sañ-sañu dund ba faaw ca jataayam ca àjjana xëy na dina am kuy werante naan a ah, su fekkee ne tàbbi àjjana nii la yombe ci taalibe yéesu kon kooku mën na dunde ni mu ko neexe di def lu ko neex te du ragal àtte ba ndaxte yàlla baal na ko ay baakaaram yépp ba noppi ndax ngëmam ci yeesu kirist ndax noonu la xalaat boobu nag xalaat bu doye di la te day wone ne kuy xalaate noonu sax xamagul luy bàkkaar te it xamul yàlla aji sell ji Yesu Kirist ñëw na ngir goreel nu ci nootaangeeg bàkkaar ñëwul ngir xiir nu nu sax ci bàkkaar ku gëm Yesu Kirist nekkatul jaamu bàkkaar ci dëgg-dëgg ñi bokk ci iblis rekk ñoo mën a def bàkkaar te di ci am bànneex waaye ku yàlla musal baal ko ay tooñam ci yiwam ci kaw ngëm kooku dina am xol bu soppeeku yàlla dina laabal xolam ba mu set wecc nit ku yàlla defal loolu day daw bépp sobe loolu la mbind mi wax bi mu ne bu nit bokkee ci kirist mbindeef mu bees la li jëkk wéy na lu beesa fi teew nu ngi leen di laaj boo solee mbubb mu set te weex tàll ndax dinga bëgg a toog fu am sobe walla nga cay dem déedéet dangay moytu lépp lu mën a taqal sa yére noonu la ak képp ku yàlla raxas ay bàkkaaram dootul bëgg seq dara ak lu neexul yàlla ci misaal su la kenn baalee boru xaalis bu rëy ndax dinga ko mën a defal lu ñaaw ngir gaañ ko déedéet dinga def loo mën sax ngir neex ko naka noonu su la yàlla baalee sa boru bàkkaar bu rëy te musal la ci mbugal gu dul jeex gi ndax doo ko gërëm di ko sargal ci xalaat ak wax ak ci jëf sa giru dund gépp déglu leen li linjil wax ci mbirum ñi bokk ci Yesu Christ mu ne nun itam ñu ñàkk xel lañu woon te déggati ñu réer bay jaamu ay bëgg-bëgg ak i bànneex yu wuute nu dëkk ci coxorte ak ñeetaange di ñu sikk tey sikkante waaye naka noona yàlla sunu musalkat feeñal na mbaaxam ak cofeelam ba musal nu ajuwul ci jëf yu jub yu nu def waaye ci yërmandem rekk mu juddulaat nu ci laabal sunu xol te yeesalaat nu ci doole xel mu sell mi xel mu sell mi mu nu sotti ba mu baawaan ci daraje yéesu kirist sunu boroom ci noonu yàlla àtte na nu jub ci kaw yiwam te sedd nu ci dund gu jeex gi nuy séentu kon gannaaw gaay yàlla yu koy déggal ngeen bu leen toppati bëgg-bëgg yi ngeen toppoon bi ngeen xamagul yàlla waaye na seen dund gépp sell ni yàlla mi leen woo selle ndaxte mbind mi nee na sell leen ndax ndaxte ku sell laa nan lanu mën a tënke dundinu taalibe kirist nag xanaa ni li yàlla bëgg ci ay doomam mooy ñu feeñal jikkoom ci seen nekkin fii ci kaw suuf ci tënk yàlla dafa bëgg ay doomam niroog moom kon nag naka la yàlla mel li ëpp maanaa ci melow yàlla mën nañu ko tënk ci ñaari jikko ñaari jikko yooyu ñooy cell ak mbëggeel yàlla aji sell la te it yàlla aji mbëggeel la lan mooy coobare yàlla nag ci ñi bokk ci moom dafa bëgg nu sell ni mu selle te nuy bëggante ni mu nu bëgge dund gu sell ak xolu mbëggeel ñoo war a la ñi bokk ci yàlla ak ñi ci des ci loolu kàddug yàlla nee na lii mooy ràññetle doomi yàlla ak doomi seytaane képp ku dul def lu jub bokkoo ci yàlla ko noonu itam ku soppul sa mbokk bokkoo ci yàlla ndaxte yiwu yàlla feeñ na te ubbil na ñépp bunt mucc moonu digal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 tey wax dëgg kenn ku nekk ci moroomam ndax ku nekk sa genn wàllu moroom nga ku mer bu mu jàll aw kaañ bu jant bi sowaale seen mer ba ngeen may seytaane bunt ku daan sàcc na ko dëddu te jublu ci liggéey lu baax ci ay loxoom ngir mu mën a dimbali ñi néew doole bu genn kàddu gu ñaaw génne ci seeni gémmiñ waaye su wax yegse na wax lu rafet ba faj soxlay seeni moroom te teg ñi leen di déglu ci yoonu yiw bu leen yóbbe tiis xelu yàlla mu sell mi leen tàmpe ngir bésu goreel ba dëddu leen lépp luy wex mbaa tàng bopp luy mer mbaa coow lépp luy xaste mbaa coxor te ngeen baax ci seen diggante di laayante biir tey baalante ni leen yàlla baale ci tuuru kirist yéen nag ñiy gone yàlla yi mu bëgg ci xolam roy leen ko ci loolu ngeen wéer seen dund ci mbëggeel mel ni kirist mi nu bëgg ba joxe bakkanam ngir nun di sarax suñu jébbal yàlla te neex ko ni xetu laj koloñ waaye naka njaaloo ak bépp sobe mbaa bëgge jëlale naa sax jëf ji waaye bu ko làmmiñ tudd ni mu jekke ci gaayi yàlla yu sell yi dawleen it yu jekkadee ni wax ju ñaaw mba waxi caaxaan ak kaf yu bon te ngeen sax ci sant yàlla na leen wóor ne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 yàlla dootul fàttaliku sunuy tooñ ndaxte yeesu fayal nanu sunu boru bàkkaar jaare ko ci sunu bokk ci krist yàlla moo di sunu baay te nuy ay doomam ci kër gi lanu bokk moom la mbind mi wax bi mu naan am nanu bunt ci yàlla baay bi jaar ci kirist ci ndimbalul xel mu sell mi noonu dootu leen ay doxandéem mbaa ay gan waaye am ngeen baat ci kuréelu gaay yàlla yu sell yi te waa këram ngeen noonu la ñi bokk ci yéesu Christ am na ñu diggante bu neex ak yàlla ci kaw suuf ak cër bu sax ca kaw waaye naka la taalibey Christ mën a toppatoo digganteem bi mu am ak yàlla ci kaw suuf ci loolu gis nanu ci kàddug yàlla ñeenti sas yu nu war fonk nun taalibey Christ ngir nu mën a xam bu baax coobarek yàlla di dund dund gu dëppoo ak sunu bokk ci borom bi ba neex ko ci fànn gu nekk te yokk sunu xam ci yàlla sas bu njëkk bi mooy taalibe yéesu dafay dunde kàddu yàlla di ci xalaat bés bu nekk te nangu ko ci xolam mbind mu seel mi moo nuy xamal liy coobare yàlla mooy ñam wi dundal sunu xel te di ko dooleel ñam wu neex a neex la ki bëgg yàlla dëgg-dëgg soxlawul ñu koy xiir ci déglu kàddu yàlla gi ndaxte dafa koy xiif ñam wi muy dunde bés bu nekk waaye ki fas yéene sax ci diggante bi mu am ak yàlla dina am it lu mu bëgg a moom moo tax ñaareelu sas bi mooy ñaan yàlla di sunu baay bi nekk ci kaw ci taalibe yéesu ñaan mooy waxtaan ak yàlla ni ngay waxtaane ak sa xarit bi nga gën a bëgg taalibe yéesu amul waxtu wu mu wara ñaane boroomam waaye war na sax ci ñaan ay tinu ak i ngërëm warul am sax saasu xelam nekkul ci yàlla taalibe yeesu yi xam nañu ne ñaan lu am doole la ndaxte borom bi yéesu ci boppam dig na ay taalibeem ne leen lu ngeen ñaan ci sama tur maa koy def te it bu leen jaaxle ci dara waaye ci lépp wéetal leen yàlla seen baay diis ko seeni soxla ci ñaan gu ànd ak cant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 waaye nanuy nàddante ci ngëm di ko feddali fii ak yéen a ngi gis bésu dellusi borom bi jub si ñeenteelu sas wi nag mooy ban déglu leen li yéesu waxoon ay taalibeem laata muy yéeg asamaan mu ne leen faawu almasi bi sonn mu dee te dekki ca ñetteelu fan ba ni ko yonent yi binde te it ñuy yëgle xeet yépp ci turam dale ko ci yerusalem ne war nañoo tuub seeni bàkkaar yàlla baal leen yéenay samay seede kon ñeenteelu sasu taalibe kirist yi mooy nekk ay seedeem di faramfàcce xebaaru almasi bi yéesu mi deewoon ngir may nit ñi diggante bu neex ak yàlla ba faw te seede soosu warul yem ci wax wante dafa wara ànd itam ak dund gu soppeeku goo xam ne mooy dëggal te di firndeel xibaar bu baax bi ndaxte bind mi nee na nguuru yàlla du waxi kese waaye doole la yow miy déglu tey ndax am nga ci sa dundu bés boo xam ne ci nga tase woon ak musalkat bi di Yeesu Christ mu baal say bàkkaar te yeesal la ndax sa dundu fees na ak selaayu yàlla ak mbëggeelam ñu ngi leen di gërëm ci déglu bi di leen fàttali ne émission yu ñuy def yépp am nañu ci ay kaset ku leen bëgg a am nga bind nu te dinañu la wax naka ngay def ngir am leen su fekkee itam am na téere ci mbind mu sell mi yoo xam ne dañu la soxal mën nga nu bind ci yoonu njub boîte postale 370 te dinañu leen yónnee téere yooyu yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis